waaw kay kay kay. mais lii combat la. ah combat bi nga war a déglu. mais Idda li. aywa. li combat la de mbay. waaw lamb la nag. lamb la. xaas production bi xaas production war na teg combat ah. xaaral xaas xaas production bi xaaral ma ñëw xaas production bi xaas production bi da ciy dugg di mooy li nga jox kii li nga jox kii yoro avant lii dañuy loo ci biir rek da doon añ ba da dafa indaale xotteeku tubay bi ba pare ne moom moo xott léegi nee na Idali moo ko xott nag léegi nag man combat bi dinaa ko dugal xaas production ci combat Lirou Diane ak Khadim Ndiaye waaw dina ci dugg de waaw dina ci dugg Lirou Diane Khadim Ndiaye dina ci dugg balaa ngay dem nga engagé ay millions xaas dana ko jox léegi. liiru jaan xaarim jaay bi combat bi dina ci. avance bi sëñ bi dana ko jox léegi. te Mbacke Ba allah gi lii toog eh. bu doon li ma bëgg ci moom. waaw combat rek moom. moom moo ko moo ma ko may mën a may ci moom. li ma li ma moom yëpp. waaw combat moom moo ko mën may. nga xam ne kenn léegi ñoom ñaar ñoom ñaar kenn ku nekk man dinaa la jox avance nga bëre ci journée Khadim Ndiaye ak Lirou Diane xaas production bu combat ba daa ngi nii man maay sa ménageur combat bi taxaw na da nga koy bëre de barke maam Cheikh Fall danaa ko wel ni dege da nga koy bëre kii danaa ko wal ni dege. dama bëgg nga duma ko. barke maam Cheikh Rafal kii. non bul door bul door dafa lànk. nga xam nga xam nga xam nga. ba pare balaa ngay wax natt nga ko ba xam nga dañ doon añ sànq. waaw. dañ doon añ sànq. fee la commencé. ma dugal sama loxo comme man damaa xaw a gourmand. ndax man bañ naa ko may lekk dañ may ber. bi toogee nee naa ko demal ca bool bële parce que man xam naa sama bopp kii laa àndal kii laa mën a bokkal mu dëgër bopp mais bi ma waafee waafaat sa waay dafa téye sama loxo bi ma xëccoon teg moom ci la xottee sama yére bi may traversé di di di saw yi di raxasu ci ci bi moo xotti ci laa koy wan Diop xaas Diop xaas ma ne ko gis nga ni ngi daal ci la ma defal teranga bi jox ma benn bassin bu bees tàq jasneer mi ngi nii jox ma bassin bi mais nag sa mais nag sa bassin bi dafa commencé ci kii ci xew waaw la wax loolu moo tax gis nga yor naa i tàq kii xam nga gàmmu la damay gàmmu ji man damay xalaat man xam na lay xalaat mais est-ce que lii dina jot bu baax. parce ak ak ak sëñ bi solo wu. non mais garaawul bu baax da ko koy wàññi. da koy wàññi da koy xat. xanaa bëgg mu jox la ko. danaa bëgg mu jox la ko wul wul wul. toppal toppal yow pare. xam nga yaa ngi ne barki Cheikh Fall nga war. waaw nee na dina la ci añ bi lañ jotee. añ bi la parce que xam la moo tax du question sujet mais nit da nga yaru ci bool. waaw li mu lekkee ci bool moo salte ay nit la fa nekkal ma ne ko baax li ngay def. mu dëgër bopp ñaari tub la ci bool bi non du ko yor a baax la dëgër bopp ma ne ko fot da ngay jël kuddu nga lekk utilisé kii ba dola la waay jërëfaal nga waa da nga wax jërëfaal man ëttu ëttu jërëfaal lañ leen dégg parce que Seexul Xaddim mais li nga wax xooti tubay yi kii comme am na ci xooti tubay sax na jël kii comme na kii noonu dafa ñaaw non bu jël bu jël bu jël doo jege doo jege eh jël ci jël non non non sa loxo daa gaaw. Fara dama ko dara dama ko gaaw. non Bada. non xoolal dama koy la jël na koy daal. non dama wan dama koy wan. non non non face face bi waaw mais fii fii du fi xat du fi xat du fi xat du fi xat du fi xat sama daal bi tam ñu liggéey du fi xat da soral lool du fi xat du fi xat yow doo reer ci reer yi léegi barka maam Cheikh Rafal doo reer ci reer yi yow yow da ngay ñibbi kii doo reer ci reer yi reer yi du ko fi xaar yow reer yi doo ko xaar reer yi barka maam Cheikh Rafal xar mi jeexal nga ci yow xar mi doon ci lekk Idaly. damaa yor say vidéo yow xam nga ne yor naa say vidéo. léegi da nga koy joxe yow. damaa yor say vidéo yow. kii xam na ci dara bee bee bee yow xam nga ne xam naa vidéo. xam nga ne maa ngi vidéo te yaay mën a da ngay neexal rek. Idaly sama doomu ndey nga te bëgg wala métti. Idaly sama doomu ndey nga te bëgg wala métti. parce que sama mag nga nekkul benn damay liggéey damay toog <laughs> liggéey liggéey la mais yow mais léegi man li ma bëgg nga leeral ma quoi. tubay bi xotteeku yaa ko xotti wala moom da kaa indaale. man maa ko xotti ah yaa ko xotti. mu jox ñëpp kudd jox ko kudd mu jël loxoom ma tooñ ko quoi mu ne ko bari ah yow loxoom nga jël kon dagal ma mu ne ma waaw. mu commencé mu def loo xam ne mooy loolu nit ñaa ngi toog ay mag ñu toog ma ne ko bari ay kilifa bi nekk mu dëgër bopp gën a li mu doon def mu gën ko évoqué ma ne ko dëgg ma téye loxoom mu jóg bi mu jógee ne laa ko yàlla ma ko def ma tubay bi xoteeku. dugal ma ci biir karabe bi dafa am sens waaw. barke yow. billaahi maa ko mën maa ko mën maa ko doole maa ko dàq bëre. pare man yow laa faral ah man yow laa faral dama koy teel a dëggal yow laa faral ñun yow la ñu faral. mais ceeb lañ boole. ani yaraate ani yara vidéo bi ani yar ko ani yar ko ani yara bi. moo ko jëlee loolu ñu non non man duma la ko jox. waa jëkkërë. Idaal ne Idaal neexalal Idaal neexalal. lamb ji tàmbali na de. man ngay geeral. rek man ngay geeral. carte bi saa yore de. mais ni dama ko vidéo rek pour téye ko. danga bay danga dellu avance. danga dellu avance. amul dugal ko amul dugal ko non yaa jaar góor yaa jaar góor ma mina zéro ma dugal sank ma mina zéro mais sama doom lelo bëre déglu ma gënu ma xam sa bopp ma encaissé xanaa du man ma encaissé coup bi xam naa booy bi kuum dafa soxor dafa nang du lu dóor eh dafa nang may may ñu espace. Eh, léegi maas maas. waaw lamb ji ñoom ñaar ku daan ñeme naa ak sambo waaw. Eh, mu doon Sidi Diop ak Waly ba tey mën naa ne. bala doole ji dugg de. sama mbër du bëri ak yow. laamu ji bari doole ji dugg laamu ji bari doole ji dugg. léegi xaar leen. laamu ji bari doole ji dugg. da ngeen def ndànk def leen ndànk bu leen sorxu sorxoo signature bi. waaw xaar leen xaar leen Mass léegi xaar leen. laamu ji damay sampu ndënd bi. waaw léegi léegi defal naa. xam nga yow Sidi Diop nga moom Waly la. wala laamu jooju mooy laamu jànk nag. laamu jooju mooy laamu jànk. Italie bari doo mooy laamu jànk. léegi loolay lam eh, léegi léegi léegi loolu dara wóoruñ ci léegi jaw jaw jaw léegi léegi diglu leen mhm. xam nga xaas production dafa tëgg làmb ji mag ci diggante Xaadim Njaay ak ki nga xam ne mooy liiru jaar gis ngeen semaine passée face to bi def nañ ko fii ci suuf àddina bi yëpp jot nañ ci. léegi combat bii nag askan wi ñoo ko bëgg. muy diggante sëñ Bada Kéemaan ak Idali Faramareen. sanq li fi jot a am. ñamante nan kenn ku ne ñam na sa bopp. yaa ngi dégg. kenn ku nekk ñam nga sa bopp xam nga li sa bopp di saf. loxoy loxoy loxoy. Idali joxe na accord am. bul dóor de bul dóor bu kenn dóor. non ñëwal lii ñëwal lii. non baax na fu mu taxaw baax na. non comprendre loo de. bul dóor bul dóor non dóoru ko xel. déedéet ma ne ma ci biir maa ngi mu yegale waay. Aja combat janvier la ci diggante Khadim Ndiaye ak Lirou Diane. gis ngeen àdduna bi yëpp jot nañ ci. mais nag combat bi ñu fi dab. mooy diggante Idali Faramareen ak sëñ Bare Kéemaan li tax ñu tëgg combat li tax ñu tëgg combat mi nag. ñoom ñaar dañoo ñamante ci boolu añ bi. waaw mais avant ñuy ñamante tamit loolu mën naa. xottante ay tubaab parce que sànq tëdd ci saal bi di dallu. waaw ma tëdd di nelaw nelawlu. waaw. <laughs> non defal nang rek. waaw moom mu ñëw tëdd. waaw xam nga man su ma tëddee nit damay nelaw nelaw. <laughs> waaw yàlla na bul sas. defal ma de. wóor na yàlla sa waay dafa nekk doxot. wuy ma xool fii xool fële xam nga maanaam maa ko tey ma yëngal sama tànk ma yëngal sama tànk wan ne ko wan ne ko nelawuma li nga looloo metti xol bi looloo waral tey ci boolaa ji bu may siis waaw léegi yow léegi yow ba mu defee loolu noo réagir non bi mu bi mu non bi mu bi mu defee loolu bi mu taggee cer bi maa xool ma yëngal sama tànk wan ne ko nelawuma daan ne upp oh. waaw léegi léegi Idaly loo ci man damay wax ak sérieux. kii maa ngi moom dër bi woon dafa yàgg dama ko doon yàgg a wër te ñu tase fii ci kër promoteur ci kër sëñ Abdoulaye Diop xaas macha allah di xaas production tëgg combat yu mag suñu kanam ma tase kii lii bi ñu ñëwee tudd bi yëpp dama off tudd ma ko def ma dara comprendre nga bi ñu tey kilifa yi dem ñu toog saal bi ma fekk ko fa waxuma ko dara aussi tam ba añ bi ñëw ci lañ commencé waxtaan parce que dañu añ bi dafa ñëw mu def yëfu baax dool la mooy duma ko muñ te man ma yar ma ne ko da nga yaru nit ku baax da yaru li def ci añ waroo ko mu a ñaaw mu jóg bi mu jógee ci laa ko jël daan ko ci ci bi ci fauteuil bi ci la ci la ma dóor ko kuu gars yi atañ mu daw génn ñëw tapet la mu daw génn moom toog salle bi waaye xoolal bàyyi ko mu comédien am loxo bi gàtt am am lu wax tànk loolu na rafet sama doom am na doom bu jigéen <laughs> am na loo xam ne man bon du ma ko def parce que nelawu ma fi kenn mënu fay nelaw bu mu naaj comédie le jour bi bu ñëwee jour combat bi barki Seexul Xadim dinaa ko nopp dinaa ko daan yow loolu nar ci bi ma ci nar jaar fu mu war a jaar rek Idaly sax nga ne saa kii biiram bii mel ni biiru kii. mën laa daal. kii cër cër yu jot sax amu ko. day soose mënu laa daan. barke Seexul Xadim mënu maa daan. ah. ah. kii munu maa daan mu damay ngemb la. waaw kan moo lay ngemb ñu ne Waly Ballago Seck la. la combat le centre du peuple. war a jël disque d'or bi war a jël disque d'or bi. dañuy jël victoire dara pare ñëw féete combat bi bu ma am bii moo a ñor combat ma am bii gën a ñor eh eh Sass kii combat bu ma am ci àdduna ci àdduna bii moo ma gën a ñor kon faramaareel la kon suba teel lan faramaareel kon suba teel waaye waxuma ay faramaareel nag ay ngemb dégg nga léegi xaaral léegi walaal non wóorul wóorul dafa laal wóorul dafa laal demoo sax. non mbay jiital la far garaaw. bay bay bay bay. tekkil sa verre nga xool ma bët ak bët. léegi léegi léegi léegi xaaral xaaral. waa léegi xaaral léegi xaaral léegi waa léegi xa. dama nga téye sa waay dama nga téye sa waay. léegi léegi léegi maas. waaw kii wax na ci làmb ji. wax na ne waali moo koy ngemb. waaw man Maxu Suba teel man Maxu Suba teel Matar Matar. waaw kon Faramaren Suba teel la. mais boobu combat dina xaas mu tëj rek. avance moo loolu loolu dinañ ko loolu moom garaaw moom loolu moom garaaw mais sama sama problème mooy waaw léegi digle sama problème mooy waaw comme ñoom ñaar ñëpp nee nañ pare te vraiment ceeb moo tax indi seen moo indi seen problème parce que waaw añ bi comme sëñ Bada ni mu añee moo metti Italie ba muy xotteeku ci ba yëre lu ne am ci man moom buñ bëggee dinaa leen ko tëggal ko bëgg na amul problème non lii boo ko tëggul sax nañ ko naa ko dóor ci mbedd bi déedéet dama koy tëgg kon kon ko ma xaar ko ma lii moom boo ko tëggul sax naa ko wër dinaa toog ci biir fort léegi di ngeen jot seen avance janvier la janvier mooy combat nuyu Diagne maa ngi woon ak combat bi maa ngi woon sama am na jàmm yëpp sama capot yëpp Wally Ballago Seck laa ci njëkkee drapeau moom laa tuddee combat bi di ci woo Malick Nar borom New York comprendre di ci woo Des Prod di ci woo gars yëpp site internet yi sama double DG yi xam nañ seen bopp maa ngi di woo di ci woo Babacar Diaspora borom Londres di ci woo sama xarit yëpp ci kattanu yàlla combat bu nekk am na fi mais combat ci kàttanu yàlla nañ xam ne mooy combat. Mm-hmm. léegi barki Serigne Sall dinaa ko respecté dinaa ko respecté dinaa entraîné dinaa jël li ma war a jël. non drapeau saa Touba la dama bëgg muy saa Touba dama bëgg muy suñu weeram dama bëgg muy suñu weeram di ma xool taxawal ni yow loo ko nar a def avant tout avant ngay woote. leen wax rek la mooy danaa ko wal ni dege. Ah. parce que boo ma xoolee xam ne ndaama laa macha allah. ginaar laay ndékkee. yaa may dégg. di añ añ bu baax. a njogo nalu di teel a tëdd di teel a tëdd. defal ndànk Matar defal ndànk defal ndànk. Matar yaa ngi may dégg. a ngi dañ fi am mbër mbër daa am làmb. Abdoulaye Diop xaas moo tëgg làmb bi. Matar man xaas moo tëgg làmb Italie ak euh, Baye Bada Baye Bada Kéemaan léegi Baye Bada nee na yow yaa koy ngemb léegi nag Abdoulaye Diop xaas a ngi nii waxal ak moom mu ngi nii am Matar Diop suba teel a ngi nii am waaye sama xam nga tey tey tey Bada ak Idaali dañoo ñamante bi ñam yu metti te li leen boole mooy ceeb bool boolu ceeb Idaali nee ni Bada doon lekkee mooy ñaaw ba ñu ba ñu jot a dóorante fii ñoom ñaar léegi ñoom ñaar ñëpp tëkkonte nak bëgg combat bi. ah. entraînement yi entraînement yi tey laa ko commencé tey tey laa commencé entraînement yi barke sëñ taxaw téye ko téye ko téye ko gars yi déglu leen téye ko gars yi déglu leen Matar Matar Diop si docteur mooy wax déglu leen déglu leen Matar man la mbay léegi combat bi dañ koo dugal ci combat Khadim Ndiaye Lirou Diane janvier voilà ñu drapeau Sa Touba. drapeau eh, Sa Touba Sa Touba ngi nii bi defal ndànk léegi nag ñoom ñaar dañ fee ñamante eh, moo tax ñu tëgg combat bi sëñ Bada nag nee na moom yow lay woo ci pare ne combat kon jeex na baara ma jox la Sa Touba nitam moom nitam moom eh, Sa Touba wér ma daal. kaa ñëw ah, ah, en bi neex na de <laughs> man comme ni ko xaas waxee rek li ma ci jaaxal mooy yax bi doon rek. <laughs> bi ma daal yax bi daal añ maanaam dóor ci la bokk. da ngay def nii rek li nga fekk frappe la. mais moom doo ko laaj ndax dafa def box ba pare. <laughs> non Bada. Ah? non. tàngalal loxo daful box la. daful box la daful box la. tàngalal loxo eh. eh. rek. non daful box daful box. Ah. tey nga dee leer na daful box daful box. yàlla muy eh, daful box kay garab. mus na ray nit de mus na ray nit. mos na rey bu dee deful box moom amul benn problème. mos na rey nit nga dee rek. Ah. bu la la dooree di nga waaw samay nit ñi may ñi may woo. di woo live VIP sama xarit doomu ndey maxu suba teel. live VIP. di woo maxu suba teel. maxu suba di woo borom Amérique Fat Kabe. Fat Kabe sama jigéen. waaw non yow da ngay ñëw ah di woo Alaaji Seck ca Gambia sama nit borom savon yi. di woo Eva Séduction. Eva Séduction ak kan savon. maa la wax loolu. di woo Fat Lawbe. waaw ak Ndey Fat Lawbe Lawbe ji booti. maa ngi leen ciy woo. waaw di ci woo di ci woo ñëpp daal. wool ma Diouf. waaw ma Diouf woo ma Diouf woo ko maa ngi ko ciy woo. waaw. waaw ma juuf juuf woo ko. ma juuf juuf kon jeex na maam Ndiaye sa woon. non man xamatuma kooku sax léegi Eva yi Ndiaye Eva loolu xam